tudd Mamadou Lamine Dramé maa ngi dëkk fii Saint-Louis rond-point Xor fii laay liggéeyee quoi mais Saloum laa dëkk dama amoon benn oto benn Hyundai Tucson dama ko daan loué quoi ku ñëw soxla ko ñu loué la ko. dama ko loué woon sax ay volontaires yu doon liggéey ak man ñoo ko yoroon pendant cinq mois biñ ko delloosee mu commencé di ko loué ku ñëw soxla ko ñu loué la ko benn jour mu am ku ma woo ku ñuy wax Ousmane Faye nee na dafa soxla oto bi fekk ma man may waaj dem Dakar ma boole ko ak sam benn collègue Manfaat Fatma Sen ñoo nekk si bureau bi jox ko oto bi ak caabi yi ak pièces yi quoi ne ko léegi Ousmane waaw moo nekk ni Ousmane Faye la tudd eh, dëkk Ngéñeen mu ngi judd le 7 huitième mois 1960 à Ngéñeen si carte d'identité bi ñu jox loolu moo ci nekk léegi bu mu ñëwee jël oto bi nee na pour trois jours la ko jëloon quoi mu jël ko le 23 novembre la ko jël waroon ko indi le 26 biñ toogee ba euh, le 25 ci ngoon ma ci laa ko woo téléphone ma woo ko jotuma ko ma woote woote jotuma ko ma naa xëy na dafa sori wala yooyu ma bàyyi ba dimanche bi may woote waat ba sonn jotuma ko bi ma xëyee ma dem def euh, lundi ma xëy def déclaration bi brigade de recherche booba léegi nag fu nekk dem naa ko ci fu ma wax rek dem naa fa di ko seet dem naa ci Touba dem naa fi Gambie fu nekk dem naa fa rek di ko seet fu ma yebal tamit ma dem fa sama benn xarit bu nekk nguma ngeegul fii moo ma yebal ne ma pour ma jéem a ñëw ci waa xalaas expliquer leen ko parce que ñoom gis na ne oto yiñ fa déclaré yi si gën a bari feeñ loolu moo ma indi woon fii tey moom bi ma koy woon numéro tigo la yor numéro bi da nga siy woote mooy boo ko woowee doo ko jot soo heure boo ci wootee doo ko jot numéro bi yóbbu naa ko brigade de recherche yóbbu ko police sort fii yóbbu ko dikk fu si nekk joxe naa ko fa brigade de recherche ñoom bu Saint-Louis dañ ma waxoon def nañ réquisition bi tigo ba ñoom amoon nañ réquisition bi sax mais waa ji numéro bi ñetti numéro rek la ci woo man ak euh, sama collègue boobu ak beneen koo xamante ni moom it genre location lay def nekk Dakar léegi bi mu jotee kii boobu mu woo ñooñu laaj leen ñu expliqué ko mu ne léegi day defaat beneen réquisition boo xam ne dakay def euh, orange ak expresso. waa ji Ousmane Faye la tudd dëkk Ngéeñeen mu ngi jël oto bi le 23 novembre 2017 le 23 novembre la ko jël jëloon ko pour trois jours waroon ko delloo vingt 26 dimanche noonu la ko jëlee. oto bi nu mu mel. bu gris la. Hyundai Tucson DK 2362 AZ mooy immatriculation bi euh, couleur gris boîte automatique. bari wax dëgg yàlla bi mu demee ba léegi euh, sonal na ma torop torop torop parce que lu bari bari moom mo si doon dimbale.